kii nag bu ñu fi dajee tey defe naa ne dana laaj tuuti ñu fàttali leen ci cosaanul teen bi ñu fi dajale waaye tam ñu fàttali leen ci cosaanul sëñ Mbàkke mi nga xam ne nii moo sancoon fii di Guédé Bousso sëñ Mbàkke nag bu ñu leen ko bëggoon a xamal defe naa ne xam léegi yomb na lool ndax nit dañ ko xamle ci aw askanam waaye dañ ko xamle tam ci ay jëfam waaye itam daañu ko xamle ci ay jikkoom foofu nag foo ci tudd rek mën ngaa wax ne sëñ Mbàkke ci royteef la ciy doon ndax bu dee ci wàllu askan dana doy rek ñu wax leen ne way juróom wu góor mooy sëñ bi moom maam jaara mi nga xam moo meññi sëñ bi ñoo bokk ndey ak baay kon way juróom góor mooy mooy mooy mooy nijaayu sëriñ bi ci zaahir bu ñu jëmee ci wàllu way juróom bu jigéen muy soxna Faati Balla Mbàkke al Kubra moom it ngeen ne moom Maam Mor Anta Sali ñoo bokk maam Balla kon moom itam soxna Faati bàjjan lay doon ci sëriñ Tuubaa di anhu kon moom doomi nijaay la sëñ bi di doomi bàjjen ci sëñ bi yaakaar naa bu ngeen fàttali ko keroog ba ñu demee ci barab suñ Mbàkke di ko siyaare wan nañ leen fi ay bayit yoo xam ci ndigalu sëñ bi lu mel noonu la ci sëñ bi firndeel ndax moo ko bindal boppam uusee ko yam na amati wa xaali noonu la ko wooyee nag yow sama doomi bàjjen di sama doomi nijaay ci wàllu askan nag defe naa ne bu ñuy wax ba wax nit li mu sëq ak Sëriñ Tuubaa daanaka jëratut ñuy jàll waaye ci askan wu baax la bokk ba jëmee ba ñëwee noonu jage woon sëriñ bi lool tam nag féete ko fu baree bari ndax suñ bàkk suñ bàkkee bokk na ci ñi nga xam ne nii bi muy ànd ak sëñ Tuubaa booba yoonu murit sosoogul booba yoonu murit sosoogul moom ànd naag sëñ bi lu yàgg sëñ bi door a woote yoonu murit ci Mbàkke Kajoor ndax ci njàngam bi muy jàngal xuraan tàllu la ci sóoratu Taaha nga xam boobu àggalagul téereb xaaju suuf bi amagul fanweeri sib ci la sëñ bi ñëwoon seet si sëñ bi soo bi ca Poroxaan sëñ Mbàkke daal di laxas ànd ak sëñ bi ni àndeek moom nag ba noonu sëñ bi àggaleel ko alxuraanul karimam ba àgg alxuraan ji àgg mu jàngal ko li jiitu ci xam-xam yi mu jàngal ko ko bam xaw cee sori mu door koo boole ku ñuy wax sëriñ Sàmba Tukulóor Ka mu àggaleel ko yenn fànni xam-xam yi mu door koo yebal dëkk bu ñuy wax Ngig Fall am yeneen fànn xam-xam yoo doon na ko fa sàkku ca Ngig Fall googee nag ci la sëñ bi wootee ca Mbàkke Kajoor wooteem bu siiw boobee di soppi liggéey mala boog di yaatal liggéey bi ci beneen façon sëñ Mbàkke ba mu ko déggee wax nañ ne daa daal di laxas daal di ñëw yeesal ak njaayanteem waaye ak njaayanteem ak sëñ bi jiitu na maanaam wooteef sëñ bi noonu itam la taxaw ak sëñ mësta tàggale ko moom benn yoon xam ngeen ne ba ci xalwa xalwa mooy sëñ bi bu daan wéet ak boroomam di yokk ay jaamu yàllaam bokk na ci ñi nga ñu néew ñi nga xam daane bokk ak ñoom xalawa mooy sëñ Mbàkke ci la bokkoon te bi ci gën a siiw di Mbàkke gi ngeen jógee bu nga demee quartier bi ñu wax Mbusoo jumaa ja fa nekk am na fa barab boo xam boo duggee ci biir foofa la sëñ Mbàkke ak sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu tëju woon bi taalifee téere boobu ñu wax Masaalikul Jinaan loolu mi bi mu jógee Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke foofu la taalifi Masaalikul Jinaan moo tax suñu Mbàkke nañ daan wax ne Masaalikul Jinaan léegi ku dul sëñ maa la gën a dégg ndax saa yu ko masaan bind balaa wow mu bind mu jàngal ma la bind te bu ma ko jàngalee ma ko fàtte kon loolu lañ taxoo ci fànn yépp nag mësta tàqalikoog sëñ bi benn yoon féete woon sëñ bi tam nag ci barab yu baree bari ñu delloo ci li sëriñ Moodu bind te mooy biographie sëñ Mbàkke nga xam sëñ Moodu moo ko bind ci atum 1946 sëñ Moodu dana ci firndeel ne sëñ bi fi mu féetale woon sëñ Mbàkke mooy ci wàllu diine ji lépp la ci mbirum diine moom la ko sëñ bi féetale woon kuy laaj ci diine boo ñëwee moom la ko sëñ bi booleel bépp lettre boo xam dafa ñëw itam te ñu war koo tontu moom la ko sëñ bi doon jox mu tontu ko bépp lettre boo xam sëñ bëggoon na ko bind autorité coloniale yi fi ne woon wala ku man di doon moom la ko daan bindloo bokk na ca lettre bi mu bindoon di ñaan tabax jumaay Tuubaa autorisation tabax jumaay Tuubaa sëñ Mbàkke moo bind lettre ba lettre baa ba léegi sëriñ bi signé ci suuf ñu door a ñaan jumaay Tuubaa ji ngeen gis tey suñ Mbàkke bind lettre bi ko demande gis nañ yeneen lettre yu bare bari tam yoo xam suñu daanaka jox ko leeg Serigne Cheikh Sidiya bi nekkoon gànnaar suñ Mbàkke la daan sant mu bind ko ak yeneen yu baree bari yoo xam ne nii foofu la ko farewoon kon lépp ajoon ci wàllu jàng ak jàngale aju ci wàllu taxaw diine ji foofu la ko sëñ bi farale woon mu def ci liggéey bu mag a mag nag boo xam ne nii defe naa ne néew na ku ko def ci fànn xam-xam jamono ji ñu toll nii ndax wax nañu ci xam-xamam daana wax ci man ñaar fukki fànn xam yoo xam ni bu ci baree bari nag da cee bind bàyyi fi mbind mànk ngi fi ànd ak ñii di ko gis man koo wane loolu mu bind ci bu baree bari gëstam ay gëstu yu xóot yoo xam def na ko ci wàllum maanaam astrologie wala boog astronomie def na ci gëstu yu xóot yoo xam ne nii moom it mi ngi fi ba léegi ñu koy mën di jëfandikoo bokk na ci yu noonu rek waxtu julli yi nga xam ne nii fexe na ba régler ko noo xam ne nii foo nekk ci Sénégal boo baaxalee ci tubaa mën ngaa regle sa montor di julli ci heure benn heure du la ca raw loolu liggéey na ci liggéey fanweer at ak ñett yoo xam ne nii saa yoo xëyee day xool jant bi suy fenk bu jant bi so mu noté bu bis ba maanaam def na ko fanweer at ak ñett yoo xam ne bis ba ko ci raw da koy jàppaat ca déwén sa xam ngeen ne loolu liggéey mag a mag la te loolu nag du hasard maanaam du nekk loo xam daa tombé rek xam ngeen fanweer at ak ñett yu nekk at mu ñuy wax atum jullit yi te mooy at mi ñuy séentu ci weer wi tam xarit ak weer yi ci topp fanweer at ak ñett yu nekk day dugg ci biir atum tubaab yi maanaam atum tubaab yi 365 jours lay doon atum jullit yi nekk 254 fukki fan benn yooyu mu ko ëppee bu ñu toogee fanweer at ak ñett yu nekk atum jullit day teeru ci biir atum tubaab bi ñaari yoon boobu loolu rek doon gis loolu par fanweer at ak ñett rek lay am loolu moo ko may tey benn bis rawu ko ci at mi moo tax mu mën a teg calendrier boo xam ne fii ba àddunay tukki manis na koy jëfandikoo te du jeex bokk ko tam mooy lu mel ne montre bi ngeen di gis xam ne ni ci xalaatam la ko defee da koy samp bant rek lay doon boo xam da koy samp boobu li muy jariñ ci la ñuy régler heure julli boo ci xasee régler sa montre maanaam heure bi day day normal day ànd ak jant bi xam ngeen ne bu ngeen demee ci yenn réew am nañu heure été heure maanaam jamono yi bu seddee dañuy yokk heure bi bu tàngee ñu wàññi ko loolu la ko waral mooy dañu koo réglé wu jant bi suñu bàkk nag montre bi nga xam moom la defar moom ci jant bi la koy réglé maanaam waxtu du soppi maanaam heure 8 heures heure bi mu nekk 8 ko benn yoon maanaam du naaj du teel du naaj maanaam loolu du soppi ndax jant bi la koy réglé loolu mu def ci ay liggéey yu mag a mag ak ni ñuy jàngalee xibla ak yooyu yëpp kon ay gëstu la yoo xam def na ko ci wàllu xam-xam fare woon fi sëñ bi ci fàll na gu mel wax nañu itam sëñ bi bi muy xalaat jumaay Tuubaa def na koon li ma la ci sase mooy na nga ko jubale xibla na nga ko jubale xibla te bu àggee nga di ko jiite loolu la sëñ bi sase woon ci jumaay Tuubaa moo tax mu def gëstu yu xóot yooyu ne def na ko ci fànn xam-xam boobu noonu la nekkee sëñ bi nag ba sëñ bi demee ci géej gi itam mi ngi woon ci dëkk bu ñu wax kër sërif foofa la mu fa doon def mooy ay téereem dafa lakkoon mu demoon foofa am na sërif bu fa daan ñëw di jógee Maroc di andi ay livre bu ko defee mën a jàppalante moom ngir téere yi nga xam ne ni ñàkkoon na ko mën koo dabaatal foofu la nekk ba 1902 sëñ bi sant ko mu tuxoo foofa ñëw fii ñuy wax Lasar Lasar tey mooy boo demee ci penku arrondissement Ndaam foofu mooy quartier bi ñuy wax Touba Mbusoobe foofu mooy Lasar foofu la ñëw 1902 ci ndigalu sëñ bi fa la nekk ba 1917 wala 1918 mu joga mu jotaan ndigal ci sëñ bi ñëw sanc fii di Gédé kon Guédé fii mi ngi ko sanc ci atum 1917 wala 1918 wax nañ tamit sëñ bi da ko doon boo demee ba Touba da ngay natt lu mat ñaari kilomètre ak yu toog tuuti ay mètre nga sanc foofa bu ko defee jumaa ja ma fay naal su àggee nga di koo mën di jiite looloo waral mu ñëw jógee foofa daal di ñëw sanc fi 1917 wala 1918 wax nañu fii itam léeg-léegi mat day leeral buñ déggee ñu naan Guédé dañuy jàpp ne comme Mbusoo bee ay tukkulóor lañ xëy na Sëñ Mbàkke da ko dubbee Guédé village gi ci Fuuta département Podor am na benn dëkk bu tudd Gédé foofu ñu ba nañ jàpp ne sëñ Mbàkke day dellu cosaan tax mu tudde ko Gédé waaye bu dee mbusoo bi seen cosaan dëgg-dëgg ci Fuuta mu ngi wax dëkk bu ñuy wax Gollare moo tax Gédé yi ab déeg rek bu fi newoon ni nga xam ne ni ngay déggee mbal ak yeneen nga xam déeg la woon bu fi newoon bi mu ñëwee itam tur yi noonu rek la ko bàyyi la ko waral mooy nee na sëñ bi def na moon demal Touba wax moon sancal ab dëkk gannaaw bu dana moon demal Touba nag kon damay jàpp ne fii ci Touba rek la bokk moo tax wutul ko aw turu boppam woo xam ne noonu la koy tuddee moo bàyyi ci Gédé kon fii la nekk atum 1918 ba 1945 ci la 1946 ci la wàccu liggéey ñu denc ko fii ci euh, jumaam ji ci Gédé di barab boo xam dañ koy ziar kon noonu la demoon sëñ bi taxaw ak moom mësu taxale ko moom benn yoon waaye li ci gën a yéeme mooy sëñ bi ay loxoom maanaam ci ay loxoom la mujj ci ay loxoom ci la ndax wax nañ ne sëñ bi li mu dénkoon sëñ Cheikh Mahamadul Moustapha dafa ko bis bu ma delloo sama borom nag ma yóbbu Touba te boo demee nag ma jox sëñ Mbàkke bu su te bàyyi ma ak moom teg ma ci loxo sëñ Mbàkke wax nañ sëñ Modou Moustapha bi ñu indee sëñ bi Touba bi mu ko yablee ñu indi ko dana leen bu ngeen demee na ngeen wooyi sëñ bu Buso te bu ñëwee ngeen teg ko ci loxoom wax nañ bi ñu ñëwee ba Touba ki ñu yabaloon mu ñëw di woo si sëñ Mbàkke nee bi mu ñëwee fekk nañ ko mu waaj ba jekk da ko ne sax man jàppoon naa ne nam ma waxoon yaakaaroon naa ne du agsi fii loolu daal di ànd ak moom ñu dem fii jumaa ji nekk tey ñu teg sëñ bi sëñ Mbàkke wéeru ci bépp gi nga xam moo ne woon ci jumaa ji doog tuuti jóg dox ay nangami jéego daal ne fii de la ne fii de la moo waxoon wax nañu ne foofu bañ ko bañ bañ sulee tuuti bañ kii yëkkatee tuuti fekk nañ fa mandarga moo xam sëñ moo ko dafa doon boppam loolu moom kon moom mooy tegtal ci taxoo goo xam taxoo na bi moo njëkk ci sëñ bi moo mujj sëñ bi ndax li ñuy wax jullee wala boog taxaw ku wàcc liggéey moom moo ko def sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bañ jébbal ko boromam mu taxawaat tam taxawaat yu am solo gannaawam nag ci njabootu sëñ Tuubaa gi lu leen bennale ak lu def njaboot gu muy benn ñu topp ci gannaaw Cheikh Mouhamadul Moustapha ba Cheikh Mamadou Sa liggéeyam jeex sëñ Fallu ñëw wax nañu bi Sëñ Fallu toogee nag la ne man kat xam naa ne kon li ñu ma doon liggéeyloo mat na mook Sëñ Fallu benn at rek lañ fi def ci xilaaf ak Sëñ Fallu ci 1946 mu wujji boromam kon loolu mooy tuuti ci Sëñ Mbàkke mi nga xam moom ngeen defal liggéey bi ngeen xam ne daal liggéeyal ngeen koo xam ne nii képp ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa dan la fay waaye yàlla dan la fay yonent bi dan la fay moom ci boppam tam dan la la ci jëf joo xam Sëriñ Tuubaa moo ko daan def ndax wax nañu Sëriñ Tuubaa bi këru Sëriñ Mbàkke mas naa lakk Sëriñ Moodu Mustafaa la yebal ak Sëriñ Fallu ak Sëriñ Basiiru sant leen ñu defaraat kër gi defaraat bagage yi defaraat téere yi ñoom ñett ñu defar ko te loolu itam suñu moo ko bindal boppam ci xasida goo xam ne ni mi ngi fi lu koy firndeel la kon boo ngeen jógee ñëw liggéeyal ko da ngeen koy sof rek ci liggéey boobu nga xam suñ bi daana ko santaane ñu koy defal suñ Mbàkke teen bii ngeen di gisit wax nañ ci histoire ne suñ Mbàkke moo ko rëddal boppam pikk yi wala boog maanaam peel yi ci njëkk a wàqi neen ci loxoom moo ko wàqi santaane ñu def ko fii bi mu sancee dëkk bi boobaak léegi war naa jege téeméeri mu ko gasee ba mu bënnit wax nañ ne jël na li ñuy wax njaq njaq mooy ndaalu ndaw ndaalu ndaw ñi ko xam mooy kanar yi kana mooy mooy mooy njaq ndaalu ndaw loolu ci la def ay matukaayam def ci ñaanam ñu dugal ko ci teen bi ba mu àgg ca suuf ñu fanaanal ko ci ba bët set mu ñëwaat santaane ñu génne ko bañ ko génne dara sëkku ci mu ne mu ngoog képp ku ci xaruwul doo ci faatu te yaakaar naa li xam ci histoire teen bi déggaguñ kenn koo xam ne ni mas faatu ci teen bi te xam ngeen teen bu njëkk kenn ubbi ko woon dafa ubbi ko woon noonu rek kon lu nekk moon na ci am waaye mosuñu dégg kenn koo xam ne nii faatu na ci teen bi kon noonu la ci def wax nañ bi mu bënneet jël na setala duy ko ba mu fees ñu tëj ko yot ko sëñ bi ci njaareem sëñ bi def ci ñaan wax nañ sëñ bi da cee xelli naan daal di xelliwaat ñaan sotti ci sell gi ne bu ñu dee nañ ko ci def kon fii teen bi bépp teen bu ñuy barkeeloo ci yoonu murit mën nañu wax ne teen bi ci ci ëpp solo ci la bokk nañuy dabujee maa aynu rahmati ca ndox moomee jàpp nañu ku sellal te am pas-pas bu toll noonu mën nga ko cee am ndax suñ Mbàkke dafa wax waxoon ne Sëñ Tuubaa du man Tuubaa di tële fii mënul fële di tële fii ndax wax nañ ne bi muy sàkk barab yi ci Gédé armeel yi ci Gédé wax nañ ne dafa wax ne xam naa ne Sëñ Tuubaa du man fale di tële fii kon benn liggéey bi la kon lépp lu ñuy sàkku ci barke waris na koo mën a sàkku ci ndox mi muy ndox moo xam ne nit xëy na defaguñ ko maanaam testé guñ ko ci wàllu laboratoire waaye xam nañ ne daal ndox mu am qualité la ci li ñu nett ci histoire si kii sëñ bi ñëw baara ñëwoon na ci léegi mooy ne gis nañ ndox la moo xam ne nii ñi koy jëfandikoo am na lu muy def seen wàllu wér-gu-yaram bu baax a baax ndax bu njëkk waxoon nañu ne képp koo xam ne nii chaque jour ñu ngi ciy naan jàpp nañu jur googu du loof jur gu loof mooy jur gi du néew doole bu dootu mën a dox moo tax wax nañu ci histoire maanaam sàmm yu baree bari bu noor masaan jot boobu dëkk melagul ni mel dañ daan bàyyi ci àll bi ñëw sanc ci li dëkk teen bi li wër teen bi ngir di ci mën a wëgg seenu jur ngir loole mën caa saafara loola jàpp nañu ne mën a jariñee jur googu noonu la mën a jariñee doomu aadama yi ci liggéey kon teen bi mi ngi nii muy teenu barkeelu di teen boo xam war si na ko fonk xëy na li ciy gën a soññee rek mooy képp koy jëfandikoo tam nga xam ne niñ koy jëfandikoo man si na cee naan man si jëf yu bari bari waaye ñu ciy moytu di ci xam ne ni ñaanuk sëñ baa ngi ci ko war di toppatoo nu mu a baaxee xëy na buñ loolu bu sëñ bi dana seet niñ koy doxale ba nga xam ne képp ku ci bëgg a jariñu a jariñu loola sëñ bi moo xam ne mu ciy joxee ndigal loolu daal mooy mooy historique bu gàtt ci wàllu teen bi ñu bëggoon leen ko li nag ci turu sëñ bi